kooku bëgg naa ko. ñoom kat permettre nga ubbi ay. waaw ubbi ay affaire waaw gis nga ci jàngat parce que lii këf gi. waaw war na mën a am. non non lu dul xoolal. Hmm. genre deal bu kalaate. bu kalaate. waaw deal bu kalaate quoi c'est-à-dire xam nga euh, euh, golo ku jóg daandu. golo yaa ko moom. loolu la woon rek léegi nag des na ko euh, dogot dogotee daal koy saam. Hmm. pour nga mën a comprendre en fait man analyse bi ma ko dogotee. waaw muy dees nga am sa saamu ñambi am sa saamu carotte daal di am sa saamu napp euh, nawe. Hmm. c'est-à-dire quoi dees na ko mën a analyser du point de vue du conseil constitutionnel. après nga analyser ko du point de vue président Macky Sall. Hmm. et du point de vue PDS. et su hmm. boobaa sax da nga naan euh, Karim Wade Ablaye Wade quoi. waaw ñett dogot dogot léegi nag ñetti dogot dogot yi. Euh, comme on dit en droit euh, le pénal en l'état le civil. ku ci nekk dangaa jàpp sa tànki moroom sa moroom <laughs> nga loola ku ci nekk dangaa jàpp sa tànki moroom waaw ba finalement euh, doo comprendre daal hmm. est-ce nga waaw dina neex a comprendre hmm. mais dafa dina jaxasoo ci biir dafa jaxasoo quoi parce que euh, presque c'est un polar et c'est euh, voulu non non non c'est pas ah. voulu non non non c'est accident de l'histoire dafa am benn affaire bu am looloo mujj gi perturbé lépp en fait ñaari action yi am. moo tax euh, ci configuration initiale ni ñu ko jàppee woon. Hmm. xam nga des fois di nga def sa palan suñu borom bi ñëw defi plan <laughs> léegi nag yow bu fekkee plan suñu borom euh, àndut ak sa plan rek. Hmm. carte gi day jaxasoo masalan. Hmm. ñoom dañ doon bolot carte gi Lambert. dañ doon bolot. waaw carte gi Lambert waaw léegi. Euh, nañu ko tëggee ci conseil constitutionnel. conseil constitutionnel waaye. d' abord je rappelle aux membres du conseil constitutionnel balaa ñu may porter plainte parce euh, benn plainte jub na waaw mais du Badio Camara mooy. président waaw mooy président bi non Badio sama grand <laughs> Badio mais ki plainte Cheikh Ndiaye la. kan Cheikh Cheikh kooku gën a nekk suma ah. gaayeen sax. parce que ñoom la sant waaw non ñoom Ndiaye la sant waaw conséquence samay grand rek a fa nekk oui te grand yooyu ay salsa bi ñuy déglu hmm. d'ailleurs évité naa leen lakk jën sax ñoom ah waa conseil constitutionnel gis nga ah mairie jekk yii ak pa nandité <laughs> yii yii ah les sept waaye yéen invité naa leen fële ah, ginnaaw Magic Land ñu lakk jën waaye naan ataaya sama paa yi ñoom toppewuñ ma dara <laughs> waaw xam nga pour man soo ko dee analyser depuis Katakayne bien évidemment tu as comme l'impression que le conseil constitutionnel euh, a joué dans l'équilibrisme quoi disons-le comme ça ah waaw c'est-à-dire que grand yaay nante nañ waaw kenn du mer waaw ku compal waaw ku compal nañ kenn du mer ba ci peuple bi sax kenn du mer comprendre ma waaw jusqu'ici et d'ailleurs et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont des sages ah. très bien parce que am na nu ñu ko gérer oui parce que boo seetloo. très bien parce c'est important ñu fàttali. Mm-hmm. soo seetloo même avant ñu doon dugg ci processus de parrainage beeg. Mm-hmm. am ay candidats yu doon xalaat naan boobu mooy tout tension bëri woon na ñu mettre ñu mettre kii le conseil constitutionnel di wax. absolument naan ñu ngi leen di xaar liste ba mu génnee ba liste mm-hmm. définitive ba ñu leen doon xaar ñu yaakaar réew mi dina doon basculer. moo tax gis nga gis nga sama grand yi ak sama maire yi ñoom Badio dirigé ko. grand yaay nante nañ mais booy on n'écoute pas de la salsa pour rien quand ah <laughs> on ne danse pas de la salsa pour rien xoolal euh, bi ñuy def affaire parrainage. oui il y avait de la tension en l'air. gis nga conseil constitutionnel ni ñu ko wàccee xoolal. joxe kii bi. ñëpp décision bi waaw xoolal ko nag ci considérant yi dul jeex. xoolal ku ci ne gis ci sa bopp gars yi dox dox dem <laughs> dem ci leneen xam nga voilà am na kii rek ay benn fan ñaari fan. xam nga rek ñoom mimi sama jigéen bu baax boobu takk musóor gi tàccu gars yeeg yooyu mais bon c'est la euh, c'est la tempête quoi mais après on, on <laughs> revient au calme quoi comme on euh, donc gis nga. léegi sénégalais yi. Euh, dépassé nañ affaire de parrainage ak candidature yi. Euh, mu mel ni dans leur euh, dans la conscience collective. et dans les symboliques collectives. Oui. les gens ont accepté. Hein, euh, que léegi waaw vingt candidats yi. te pourtant c'était pas facile. mais le conseil constitutionnel a, a, a fait du grand art le conseil constitutionnel a même fait dans. dans l'équilibrisme mmh. le hmm. conseil constitutionnel a été un équilibriste <laughs> quelque part xam nga nu fi nuñ ñu nekkee nuñ ko nekkee euh, je rappelle que nous sommes à Katekei oui. Hmm? oui Katekei oui foofu moom toppewul kenn dara voilà très bien euh, bu dee président Macky Sall hmm. daanaka defal nañ ko lu mu bëgg est-ce nga mooy mooy Ousmane du bokk Ousmane bokkul. Ousmane bokkul mais bu dee opposition bi tamit defal nañ leen li ñu bëgg. mooy. Jomaay day bokk. Jomaay day bokk. est-ce que comprendre maintenant léegi là ou le conseil constitutionnel à mon avis. Oui. Euh, a sorti du grand art. Hmm. mooy Macky merul opposition bi merul. <laughs> xam nga li ma xam nga xam nga loola léegi loolu mooy ci léegi nañ jógee conseil constitutionnel parce que sama grand yooyu comme ñooy bokk di lekk lakk jën euh, la ma wax ci ñoom rek doy naa li ci des bu ñu toogee lakk jën danaa danaa la ko expliquer. Ah. comprendre <laughs> léegi nag nga ñëw ci. Hmm. Euh, Macky Sall le jeu politique. la on est on était dans le jeu institutionnel. le jeu le institutionnel juridique et institutionnel. Hmm. maintenant ñu ñëw ci jeu politique bi mais foo fay neex a xam nga. Euh, Macky moom defe naa est-ce que Macky am na temps nekk fii di porter plainte ak kenn <laughs> di leen jàpp ak yooyu. ah doo doo ah mais Macky moo raw loolu ah. te suñu campagne bi xanaa Macky du ko yàq nag. waa mm. du ma wax benn affaire sax mu gis ci boppam ak yooyu yooyu waa PDS moom ne fa maayal xam nga <laughs> Thierno Alassane laay dem bu bu ñu ma porter plainte <laughs> ma ne Thierno Alassane laay mais bon. Euh, j'ai chahuté un xam nga su ma ko doon analyser un peu. Mm. Euh, dama naan euh, peut-être peut-être. Oui. Euh, président Macky Sall euh, depuis protocole de Conakry. Oui. Euh, hein? Hmm. Il avait gardé un certain lien avec le PDS disons-le comme ça. Hein? Hmm, hmm. Pour man su ma koy analyser. Euh, depuis Kate Kayni et tu le propre de Kate Kayni. oui ñun foofu dañuy dañuy dañ ñeme yàlla de gaay <laughs> ñun foofu ragaluñu yàlla gaay ñun ñu nekk sa ñun nekk ah. sa <laughs> ah. oui ñun nekk sa ah. ñun xam nga comprendre <laughs> léegi peut-être que su, su, président Macky Sall. Hmm. dafa woon waa PDS yi. Hmm. Euh, bi ñu defee euh, assemblée nationale. Oui. ba pare. Hmm. ba gars yi am euh, presque pelloo. Euh, mën na am daf leen ni gars yi léegi xam na def léegi yéen dangeen di ñëw far ci man loi bu ma dugal. ngeen jàpp ci mu jàll. en contrepartie dinaa leen bàyyil Karim mu jàll. ah non de je suis à catéchénien oui, euh, moo tax daal ma ni la waa PDS yi daal. Hmm. Euh, la Alioune Mbaye Nder doon wax yaroo baax daal yaroo baax xam nga. Hmm. Euh, ca nañ demee woon assemblée ca nañ fa duggee woon du noonu hmm. lañu toogee. xam nga duggee noonu lañ toogee. voilà te nañ fa duggee woon nag waaye yeewi askan bi hmm. euh, après dañoo dem toogee waa <laughs> bennoo ba. est-ce nga yu bari yu fi jàll ci loi yi daanaka booy xool assemblée bi sax ñoom ñoo doon et cetera. est léegi ñëwuñu ba. euh, parrainage ouais, conseil constitutionnel les conseils constitutionnels dans son art d'équilibrer les choses kenn du mer mu ni léegi bon xaaral comme grand bi dañ ko rus te moom mi ngi reyanteeg booy bi <laughs> xam nga lu ma la ah te vraiment guerrier la quoi léegi moom benn contradiction majeure la am muy Ousmane Sonko quoi comprendre léegi nañ ko régler Ousmane Sonko bi quoi léegi benn contradiction secondaire la am mineure muy Karim Wade comprends hmm. mais seulement léegi ñu éliminer Ousmane Sonko maintenant doo mën a éliminer Ousmane Sonko éliminer Diomaye di bëgg a bàyyi Karim Wade hmm. surtout que séquence boobu affaire u décret beeg yooyu ak yooyu. waay comprendre nga. waay je suis à Katekenia. kon donc ñu éliminé Ousmane Karim malheureusement. Euh, objectivement ñu éliminer ko. oui da nga naan objectivement waaw parce que affaire nationalité boobu maanaam responsabilité bi moom mënul dellu ci très bien très bien ci Karim parce que euh, kayit googu mu jógee moom éliminer ko d'office léegi gën a yombal affaire bi conseil léegi nag mu des Ali Kalet gi Jomaay. Ah. comprendre nga. Mm. léegi nag pour man Jomaay bi mujjee jàll. Mm. moo jaxase carte gi yëpp ba tax carte gi mujj gi làmbeer. ah oui waaw lan la xaaruñu ko. très bien. parce que euh, su ma nekkee katakay nii. ba léegi parce que maa ngi lay rappeler benn euh, benn benn bon je sais pas si c'est une confidence ou bien bon moi. Oui. xam nga comme tey c'est la dernière ouais, émission waaw waaw dama koy wax rek déggee quoi après man maa ngi dem campagne ko quoi man après sama yoon nekkul ci ay analyse man sama candidat moo intéressé voilà Serigne Mboum bu yoree réew mi nan la koy doxalee quoi. Mm. xam nga jour bi ñuy. deuxième phase du parrainage. oui. Euh, candidat yu ñëwoon voilà bi ñëw di mottali bi daanaka candidat bu ñëw à peu euh, xam nga ñu dañu mottali woon. waaye. Euh, candidat bu ñëw à peu près di nga def une quinzaine vingtaine de minutes. Mm-hmm. gars yi xool ko soit ne la baax na. Mm. wala ñu ne la baaxul mais bu jamaay ba. Mm. presque def nañ fa waxtu. justement ñu naan dañoo jaxase woon. jaawale woon jaxase wu ñu dara de. ah parrainage ak ñu membre. Ah, jaawale ah, jaarale ñu naan jékki-jékki il faut ñu. yu nekkoon ci Europe. waa noonu ah. nga ñoom jomaay. ah euh, waaw parrainage réew waa diaspora. non non du loolu sax <laughs> gars yi dañoo pare élection yi de fi mu toll nii. Hmm. xam nga euh, équipe bu jomaay. Euh, da ci am ay informaticiens la majeure partie sax ñu ngi bitim réew. gars yi dañu codé clé bi xam nga da nga daan joxe clé ñu copier mais bi yoon du document bi nañu codé sax mais clé bi fam nañu codé <laughs> c'est-à-dire yow boo ko jëlee mënoo joo def lenn lu dul exploiter sur place et sur pièce même soo ko copier boo demee du dem kon donc clé bi ñu la jox xam nga en général conseil constitutionnel. waay yow soo indee sa clé ñoom. ñoo dañuy copier affaire yi dem waaw. les gars yi nag xam naa ay gars yu fitu nañ ci informatique. kele ba ci boppam. la <laughs> ñu tëj la ñu tëj léegi nag conseil constitutionnel. amul benn pexe bu dul exploité sur pièce et sur place léegi nag a pris du temps ça a pris du temps gi gars yi am pexe ñàkk pexe ñu mujj ko. contrôler noonu sur place sur pièce. moo waral yàggaay parce que yàgg na bien ça fait est comprendre bu ñu xoolee te conseil comme ay paaw salsaar ay nante nañ. Hmm. bu ñu xoolee xam ne amul benn problème euh, ñu ni ko gongo. Hmm. est-ce léegi nag euh, ci analyse bi. ci géopolitique bi. Euh, boo dee gis cëfal cëfal bi PDS nekke bu la neexee nga analyser ko je rappelle que a suis à Katekeng. oui bien sûr léegi waa PDS phénomène voilà très nag waa PDS nag ñoom dañ ñaan waa mais mais ñun Macky il nous a eu sur toute la ligne comprendre nga. d' il nous avait eu ci protocole de Conakry. ñu ñëw assemblée nationale comprendre nga hmm. mu am lu ñu dikk ak dialogue bi fi très bien ñu beddi gars yi loi bu mu andi ñu voteel ko mu digoon ñu ni lii ñu ñëw ba fii ah <laughs> <laughs> bokkul <laughs> ñu bokk ñu waaye dañuy xëpp affaire yi kaaneeg yooyu est-ce te Sonko bokk waaw su dee mooy Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye waaye finalement très bien ñoom sax bu ñuy éliminer ñu éliminer mais ñu éliminer fële kon donc ñoom non pour ñoom daal Macky daal da leen njuut njaaj quoi. léegi daal ñoom léegi da xoolal dañuy ne léegi nag et de manière subtile. président Macky Sall euh, pour achever leen quoi jacata kay ne moom nag euh, mën na am nu mu taxawee ci suuf quoi xam nga katakay nii am nu mu taxawee ci suuf Euh, léegi euh, le fait que conseil constitutionnel bind lettre bi mu bind nii. léegi waa PDS ils sont discrédités aux yeux de l'opinion est-ce que comprendre nga. Hmm. Euh, dootuñu leen naw quoi ci affaire yi ñuy def nii. Hmm. comprendre nga di ak wax. mooy communiqué conseil constitutionnel pour tontu bien pour tontu leen. Ah, ah. et donc léegi est-ce que je suis à Kate kay nii. comprendre nga léegi xam nga Macky la nante la xam nga te comme xam na ni wure bi dem na fii. Hmm. léegi daal ñii daal bala ma leen bàyyi fii ñu may perturber baal ma achever leen benn yoon quoi et léegi par exemple. oui peut-être peut-être ah. bu mu génnee document bi. léegi mag yi ci kaw daf leen di wan ne yéen maag yéen ñoo ànd euh, man man man d'ailleurs boo xoolee euh, APR d'ailleurs d'ailleurs voilà d'ailleurs li li ma waxoon ne nag yéen def naa ko mais li ci des nag moom du sama compétence ah. parce que nationalité Karim ak yooyu man loolu géré wu ko comprends ah. man li ma géré daal mooy defale leen dialogue xam nga euh, kii ak yooyu xam nga. Hmm. waxtaan ak samay gars. waaw mais affaire nationalité yooyu moom géré wu ko man daal li ma ci mënoon léegi ci suuf nag. Hmm. Euh, peut-être mu xam ba waa conseil constitutionnel <laughs> xam la wala gars yi jóg am na ñu taxawee léegi euh, qui est le plus grand perdant. le PDS. en fait comment parce que la ñu bëggoon amuñu ko seen qualifié candidat. Euh, qualifié wu. Hmm. et aux yeux de l'opinion tey acte bi am assemblée nationale. de plus en plus sénégalais dinañ leen xeeb parce que ñuy ay kilifa. de surcroît ñuy déglu salsa les plus honnêtes hommes ici au pays sont les sal salseros <laughs> waaw c'est pas les les les waaw et cetera waaw waaw waaw ñii euh, euh, l'honnête citoyen hmm. l'honnête homme du XVIIIe siècle. Mm. Euh, je pense aussi qu'on peut le trouver euh, chez, chez les salseros. Mm. voir euh, voilà sama gars ñi nekk dans les bistrot ça c'est des honnêtes hommes xam nga lu tax wax la <laughs> parce que Madou du jabate mm. disait dans l'une de ses chansons mm. euh, xam ko taxul nga baax def ko taxul nga bon n'est-ce pas mm. euh, quand une dame du Ngoyane à Kaolack. Hmm. disait que Sankara kenn du ko jaay doole. <laughs> et d'ailleurs c'est peut-être la raison pourquoi dans les bouteilles on écrit à consommer avec modération. avec <laughs> donc je suis dans la modération Passeman je vais essayer de modérer mes propos parce que xam naa ni waa PDS. aujourd'hui peut-être ne seront mais pas. mais très parce que il est important. Mm-hmm. li nekk di am yëpp ñu comprendre. en mm-hmm. toile de fond. Mm-hmm. en fait lan la ñu bëgg a wax te waxuñu ko. parce que mhm. wax nga léegi fi mu déparé on a comme l'impression que bu ñu la dégloo mooy ni. PDS mhm. dafa bëgg a déplacer le problème. alors que boo delloo ci li xañ Karim Wade mu bañ a bokk mbirum nationalité la. Mhm. Mhm. responsabilité bu ñu koy delloo foofu la. Mhm. léegi su ma ko doon wax nga jàpp ne ñoom ñooy perdant yi voilà léegi léegi su ma koy ñoom nee nañ duñu dañoo nar a dem ci élection yi. Ah. ak Karim Wade lu mooy loolu élection du am. ah wax de. <laughs> waaw léegi ñoom nañ ñëw katakee ni katakee ni moom foofu foofu moom mën nañu faa tere Sénégal gii euh, xam nga bu ma ko doon caricaturer. Hmm. Euh, de manière très nandite quoi. Hmm. xam nga. Euh, président Macky waa PDS danañ ñëw mooy comme na ko fa waxoon ca Sonko ga ak Macky ga. waaw ah. <laughs> koy fàttaliwu. Ah. Ah, euh, waxtaanu biir ba. waaw waaw waaw waaw léegi euh, day day day def bu mel noonu ci diggante waa PDS. Hmm. ak Macky est hmm. léegi ñu dem ñu léegi léegi tey euh, dañu romb katakay ni dugg sutukum on est toujours dans Saraba hein la république de Saraba le royaume de Saraba ou bien l'espace de Saraba voilà très bien katakay ni c'est bon hmm. mais euh, sutukum encore c'est mieux xam nga léegi hmm. sutukum waa PDS sax naa dañuy ñëw ne wax mais Macky yow mais Macky yow noo mën a defee lii yow tamit gaayeen <laughs> xam nga yow nga wax ñu li ñuy wax xam nga ñu jàpp loolu defal la li nga def. Mm. nga ñëw doxalee noonu. Macky ne leen waa mais man li ma waxoon na yéen def naa ko ah gars nga. def naa dialogue def naa la yooyu mais dafa am benn paramètre boo xam ne moom maîtriser wu ma ko ba ñaari paramètre ah. benn bi mooy affaire nationalité Karim man yooyu duma ko lijjanti. waaw ba pare xam nga waa conseil constitutionnel ñoom ñoom tamit ñu man lii. Mm. yéen yéen yéen yéen a ngi may dem yéen da ngeen maa wax. man ma dem wax mais man tamit xam nga gaaw conseil xam naa bu bu ko defee Macky tourné ci waa conseil constitutionnel ne waaye yéen tamit lu mu demee nii yéen yéen waxante wuñ woon lii <laughs> xam nga la xam nga comprendre nga bu ko defee waa conseil waa conseil constitutionnel ne euh, jàmbaar hmm. yow daal xoolal ñun xoolal bàyyi hmm. rek danañ def ba affaire yi ba kenn du mer waaw ndax peuple baa ngi nii. Hmm. droit ngi nii xam nga euh, justice ngi nii droit ngi nii politique ngi nii peuple baa ngi nii. Hmm. yow daal yow bàyyi ñu ñu def rek quoi. Hmm. fii moom xoolal nice quoi li ci des moom jarul jarul ñuy nekk expliqué ba pare nag euh, daal di tëj seen i bunt fay seen i téléphone <laughs> xam nga mujj gi bàyyi euh, coow la. Macky Sall ak waa PDS waaw mais gars yi léegi nu ñu koy def bu ko defee peut-être Macky ne leen waaw yëngal leen rek xam nga dëkk bi moom da nga yëngatu rek waaw yëngal leen rek yéen maa seen ginnaaw yëngal leen rek xam nga ma xam nga hmm. bu gars yi commencé yëngal xam nga de ko ne kii ak yooyu yooyu xam nga mu hmm. hmm. euh, xëy suba comme waa conseil constitutionnel xam ne nañ numéro mu ñëw àbb pas Ousmane numéro quoi xam nga ko Macky moom daa yi kenn du ko jël nday dem wooyee gars yi ne ko waaye man la yi man la Macky waaye xoolal waa PDS yi di deko nekk yooyu quoi yéen daal xoolal téye ko fi ngeen ko téye rek quoi xoolal nañ dem élection rek bàyyi leen ñi dañuy dof dof lu quoi defee ni ñoom moom réew mi quoi xam nga hmm. man mi nga xam ne j'ai fait face à Sonko hmm. yow PDS taxaw fi naan élection du am ak yooyu waaye yéen daal xoolal kii leen sax xoolal gën leen communiquer sax xoolal et cetera léegi nag xoolal léegi waa PDS nag xam comme ay nante nañ. dañuy xam ni wure ba dem na këng. et puis jàpp ko ay menaces. waaw xaaral rek xaaral rek ma grand ma ñëw. Hmm. léegi nag waa PDS dañuy jàpp ni wure ba dem na këng. léegi nag perte nañ diis léegi Lastec du ñu ko perte léegi nag lan nañ ñuy def mooy. Hmm. ah léegi nag li ci des. Hmm. il faut ñu monnayer ko. waaw ah. au nom du du du capital Karl Marx le libéralisme la folie philosophique xam nga kat kay ni jaare saare ba jaare et cetera et cetera et cetera et cetera donc wala voilà de manière modérée et décousue. Hmm. voilà léegi nag après ay ay ay kon du mujj fenn kon bu ñu déggee nii commission d'enquête même bu dee nee nañ fii après sa puzzle rek dugal am sa loo euh, kii quoi. Hmm. oh grand. du hmm. mujj fenn damaa xam ni ñun li ñu daj li ñu dajagum bokk. si <laughs> élection présidentielle yi ah maag sama candidat Serigne Mboub liñ ci dépensé en terme d'énergie mm. euh, insomnie mm. ak koppar mm. ah, euh, presque presque au bas mot les gens sont près ay deux cent millions de dépenses déjà effectuées mu taxaw fii euh, naan naan naan naan élection di am moo tax ma ni la waa PDS nii tànk yi ñu jël bu ñu ko jëmul. Hmm. danañu woowee aleen Mbaye Nder waaw moonte orchestre takk rajo yi mu ñëw wax waaye leen way wi. Aline Mbaye Nder waaw yaroo baax yaroo baax yaroo baax kooku mu ngi génnoon ay 93. 92 93 dama ko daan fecc nag mbooro la ma fekk d'ailleurs ah <laughs> yaroo baax yaroo baax yaroo baax soo yaree ma ci tàngal yi sa gunóor ngaay. soo yarewul yaa koy yëg yaroo baax après ni loxo yi ci dënn bi <laughs> waaw loxo yi ci dënn bi tëng tëng tëng waaye musique bu neex waaye ndeysaan <laughs> ça me rappelle beaucoup de choses ndeysaan ah. beaucoup de choses waaw kon daal waa PDS daal mm. nañu nañu yaruwaay nañu yaruwaay te kii bàyyi ñu ñu dem ci élection yi te de xool coolee kii rek c'est parce que ah. y a un vide mais bu campagne bi démarré ba gars yi commencé exposer preuve ils vont passer seen actualité kenn dañ koy fàtte sax fi toll nii y a rien dans l' espace. xam nga lu ma la ah xam nga fi mu toll nii ban actualité moo am xam nga actualité benn amul. moo tax